asalaamaaleykum chers téléspectateurs asalaamaaleykum ah, askan wi asalaamaaleykum képp koo xamante ne yaa ngi seetaan seen télévision seen télévision mag bi di Siweul TV tey ñu am mbégte ak contentement di leen wax a ah, leen a jàmm seen émission mag bi nekk jotaay ndaw ñi ah, tey jotaay ndaw ñi ni ma koy waxee saa su ne ak thème bu muy dikkee tey nag jotaay ndaw ñi dafa ñëw ci thème bi nga xamante ne mooy actualité mooy actualité bi nga xamante ne moom mooy réew mi mënuñoo wax actualité ba génn ci ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko lool moo waral ñu dalal ñaari naataangoom yi féetee fii ci diwaanu euh, Mbacke plus particulièrement ci région de Diourbel euh, soo xoolee euh, sama sama càmmoñ maa ngi am ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Seck chargé pour communication bu bu Mbacke Serigne Mbaye maa ngi lay ziar di la wax dal la jàmm seen émission bi di jotaay ndaw. kër gi maa ngi lay ziar bu baax di la fay ñëw di rafetlu invitation bi waxtaanee ndaxte yàlla def ko ni ko waxee. jërëjëf euh, Serigne Mbaye euh, yooyu am na solo macha allah boo xoolee sama ndeyjoor maa ngi dend ki nga xamante ne moom mooy Serigne Mao Serigne Mao maa ngi lay ziar di la wax daal la jàmm seen émission mag yi. a ziar Pape Demba di ziar internet yi Siwo TV yëpp ak téléspectateur téléspectateur Siwo TV yëpp bu Pastef ci diwaanu rawatina ci diwaanu Mbacké ak jërëjëf ah, mbokk yi ah, dégg ngeen ah, sama ñaari naataango yi présentation bu am solo bi ñu def damay njëkkee ci nga xamante ni moom mooy Serigne Mbaye Serigne Mbaye ku ne xam nañ temps yi dëkk bi yëngu na lool li ko yëngal mooy diggante Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom mooy le président Macky Sall ak di leen liyee mooy problème bi nga xamante ne moom mooy problème aji saar ñu naan viol la ñu naan du viol waaye en tant que euh, tey li ñu tax a jug suñu thème dëgg dëgg dëgg mooy Ousmane Sonko ak ndaw ñi ana lan moo liye Ousmane Sonko ak ndaw ñi euh, posé nga question bu am bu am importance parce que si àdduna depuis la nuit des temps ku ne xam ne ne politique dafa mës di am depuis euh, jamonoy Seydina Mohamed ba suñu jamonoy tey politique si si si ni nga xam ne noonu la gën a noble muy nekk la gestion de la cité maanaam l'art de gérer la cité yàgg naa si si si si civilisation boo mën di gis bu ñu ñëwee nag ci Sénégal mu am ni ko doon defee am ñu si nekkoon di yëngatu ba le président Ousmane Sonko ñëw dugg ci langue politique ci diir bu gàtt gis ay changement comme ni nga ko waxee ndaw ñëpp daanaka euh, Sénégal dafa nekk 65 pour cent yoo xam ne ay jeunes lañ majorité ndaw ñi en tout cas ñi nga xam ne ñoo si ëpp topp Ousmane Sonko maanaam gis bop gis seen bopp ci li nga xam ne moom lay woote li ko waral simple la euh, dama dama dama bu may tënk rek dama naan damay damay def le distingue entre la politique avant Ousmane Sonko la politique avec Ousmane Sonko donc la politique avant Ousmane Sonko dafa am ni ñu ko doon defee maanaam mooy xëccoo nguur pour mën a am ay privilèges en résumé la politique avec Ousmane Sonko dañ commencé dégg ñuy wax ci affaire politique fiscale avec Ousmane Sonko nga dégg débat politique bi ñuy wax politique fiscale avec Ousmane Sonko nga dégg ñuy commencé waxtaanee ñu naka ñuy def ba moom suñu ressource naturelle muy or bi muy pétrole bi muy gaz bi avec Ousmane Sonko nga gis ñuy commencé waxtaanee ban modèle économique la ñu bëgg pour suñu réew. avec Ousmane Sonko nga commencé wax ñu naan dañoo bëgg ay championnat ay champions nationaux dans ci secteur privé moom suñu économie téye ko suñu avec Ousmane Sonko nga dégg ñuy wax euh, naan France CFA dañ ko war a bàyyi am suñu souveraineté monétaire avec Ousmane Sonko dañuy def la distinction entre vision et programme dans les partis politiques avec Ousmane Sonko ngay dem élection présidentielle ñu naan dañuy def face à face en tout cas des débats présidentiels civilisés comme dans les grandes démocraties pour voir ku un programme une vision avec Ousmane Sonko aussi dañuy wax di parler du financement des partis politiques avant on n'en parlait pas c'était un sujet tabou donc on dit aussi Madame euh, Ben, paradigme le don de soi pour la patrie Madame, il faut renouer pour politique avec essence mooy zéro la cité avec désintéressement Ousmane Sonko ñu indi nonu la don de soi pour la patrie manam da ngay da ngay jox sa askan jox sa réew te do ci sentu dara manam loolu nag bi euh, ci diir aussi non seulement daf ko mais daf ko daf ko parce que dafa am pensée bu mag buy wax les autres c'est se commander soi-même maanaam nit ñi ba leen bëggee jiite ñu topp yow li leen di woo yow Ousmane a réussi à pratiquer ce nga xam ne moom daf koy daf des woote des ci jub ci sellal ci dëggu ba tax askan jeunesse en tout cas majorité de la jeunesse qui seen bopp ci ci monde, pour adhérer à la vision euh, du passé Et man pour terminer je suis ci personnellement parce que man dama doon politique avant Ousmane Sonko amoon ay convictions fas yéene liggéey sama réew mais bi ma Ousmane Sonko ñëw maanaam langue langue politique bi ma nekkoon dama ko abandonné te demoon naa ba nekk ci kàngam ñu xam ma fa ma nekk chargé de communication dans un parti politique boo xam ne ñëpp xam nañ ko Sénégal ñi may seetaan danañ ko xam ma bàyyi fa lépp ñu ànd ak Ousmane Sonko parce que retiré aussi vision politique dëgg la sàmm sàmm dëgg la mbay foofu dinaa fa dellu si incha allah damay ñëw ci nga xamante ne moom mooy maawa euh, maawa tey jii euh, ñëpp xam nañ ne euh, ñëpp ñu ngi posé wu la question lan moo tax ndaw ñi jël seen bopp xintal ki nga xamante ne moom Ousmane Sonko soit intérêt la wala ndaw ñi moom dañoo bari doone pour bëgg jàmmarloo waa ji wala lan la Ousmane Sonko ñamal ndaw ñi nga xamante ne tey jii ñëpp a daw utali ko. jërëjëf Bab Demba loolu am na solo trop parce que dañuy xool rek Pastef d' abord naka lañ ko créé donc Pastef ñu ko créé ay kàngam lan toog xool def analyse xool situation dëkk bi lépp xool ci créé kaw loolu ñu na dëkk bi ak ñu ko ŋànk du mas a dem fallait que donc ñu def ben révolution wala par exemple ñu révolutionner ñu révolutionner politique aussi te euh, wat ci la nga xam si moom moy mom moy par exemple demale Sénégal karam mo doon projet tëgg ko ci ben projet ci ben vision ñew jaay ko ndaw ñu ko jaay ndaw yi parce que politique comme nuko ko sama naataango waxe Baye c'est l'art de gérer bien la cité donc politique nous ñu koo wax su rawatina Sénégal ñu xamné plus de 60 est composé de jeunes yow nga bañ intéressé wu ci politique donc da leen di incité à ce ñëw sax ci politique mais ñëw ci comment ñëw nañ xool li nekk ci yeneen classe politique yëpp mu doon benn classe classique ba nga xam si moom lañ doon gis ñu gis ne aussi Sénégal depuis l'indépendance ba léegi day gën a dellu ginnaaw ñi mu rawoon roppi nañ ko ci wàllu développement jeune bi toog taxaw du question dañoo bañoon dem politique mais nu politique bi mel nu langue politique yi mel moo leen yokkutoon Ousmane Sonko ñëw ak vision ñu gis seen bopp seen bopp ci jàngat bu nekk parce que politique day da doon vision ak parcours le leader gis nañ parcours am ñëpp xam ko mu doon kàngam ba muy jàng génn fa xam si école ba nga xam si ñëpp ràññee nañ ko ci wàllu école yi gën a màgg aussi bu mu ciy génn aussi gérer ay gérer la xam si par exemple mooy direction fiscale ñëw ci saytoom lépp ñu gis ne jub na kocc ñu aussi ñu dàq ko foofu noonu lépp lu tax ñu dàq ko mooy le don de soi pour la patrie Sénégal nag taxaw daal ne ñun du question ne politique mais dañoo gis doon leader si mooy incarné ñoo fi bëgg. mais mais mais maa maa dogu man sax mais xam nga tey jii am nañ am na dégg nañ Sonko jihadiste Ousmane Sonko nekkul nit koo xamante ni jar mais bu ñuy dégg loolu ci Ousmane Sonko jékki-jékki gis li ah, nga nga xam ne ñoo ànd Sonko des fois ñu gis wala ñu agressif est ce loolu tamit du téye xelu Sénégal yi de trop. voilà loolu boobu foofu rek ma fi taxaw dèjà dañoo nekk 2014 lañ formé Pastef ba léegi événement yi ngay dégg ñu naan ay taal pneu ak ainsi de suite mais Pastef li du parti bu violent kéro bi ñi bi gaay yi dem kër taxawal nga gis nañ boy di di tal dañuy indi li ko waral dafa doon la xam si responsable mënoo ko jox pastef parce que déjà pastef fu mu jaar lan lay wax rek te yëngul yëngulu dara dañ dañ boo ma mayee rek ñu dégg pastef ñëw nañ ñu def parrainage ak bon éruption benn gendarme daan dugg agressé ñu jël suñu jël dinañ dinañ jël dinañ jël suñu pare ba tey pastef yëngul pastef def na meeting ñu rey benn militante am ne dañ ko violé ñu dugal plainte ba léegi nii pour complice yi ñu ñu comploté affaire yooyu ba léegi dugg fenn Pastef yëngalu Pastef fekk nañ ko biir siège am saccagé ko déggoo Pastef yëngal donc ñu ñëw ci instant bii nii Pastef bi muy dem demul xam nga ne jour boobu le huit février la woon demutoon pour ay taal pour nag ainsi de ñëw nañ di wax problème la nga si entre deux citoyens nee nañ affaire privée te ñu complot la dañu ci ñëwaat xam naa mu ñëw ñu dem ci soutenir suñu leader ñu fekk ñu fa dañu sànni ay lacrymogène nit ñi nak dañ ne ku la top ba nga sës dal la wala xam ci for nga nekk nekkutoon ci mom non la demee rek moy résistance la dëgg la may ñëw ci ki nga xamante mom moy mbay sék mais mbay sànq yaay ngi wax wooju am solo né nga da am fo nekkon ben langue bo nekkon mu nekk ben géopolitique euh, nga ne Ousmane Sonko mo la wan di tax nga jógee fofu ñëw ci mom léegi ma bëggono xam yow en tant que jeune lan la le Ousmane Sonko influencé ba nga jógee fofu nga ñëw tay ci parti politique bon en fait euh, wax naa ko ci samay kàddu sànq dama koy gën a réitéré waat donc pour man politique euh, c' est pour jariñ si askan donc en tout cas man euh, dama jàpp ne bi ma nekkee ndaw ba tey ma nekk élève étudiant man ni ma nekkee am ay responsabilité ci dëkk parce que dafa am benn xeetukat bu naan la vie contemplative est souvent misérable maanaam àdduna boo ci nekkee booy doo seetaan maanaam boo seetaanee rek maanaam euh, sa dund moom amut amutut amutut amutut amutut njariñ maanaam il faut ngay agir si ay causes importance moo tax man je me suis toujours mis dans l'action si mouvement syndical ba ni ma nekkee ci politique bi ma duggee ci politique aussi ma doon ko ma ko def di jéem a garder samay samay valeur ak samay samay principe parce que avant tout ñun ay ay a ay ay ay ay ay taalib Serigne Touba lañ te dañ koy revendiquer te dañ ko bëgg aussi di ko incarner di ko doxe ak fu ñu mën di nekk donc mais Ousmane Sonko valeur moo tax ñu topp ko en réalité ay valeur ay principe ak aussi cause bi ñu défendre c'est pas la personne de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko daf koy wax sax moom mu ne mu ne mu ne mu ne le Pastef c'est un projet loolu moo tax Pastef différent ak parti yu bëri c'est un projet en fait projet boobu lu nekk ci Ousmane Sonko conviction bi ak valeur yi moom lañ bëgg mu nekk si sur les 16 millions de Sénégal bu ko defee Sénégal mën jëm kanam te en fait euh, koo xam ne moom bokkut ak bokkut ak bokkut ak Ousmane Sonko maanaam parti politique euh, nekk kàngamu si si politique docteur Abdourahmane Diouf daf ne Ousmane Sonko est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise te bi mu koy wax euh, Ousmane Sonko jox ko lem jox ko suukar dafa toog analyse la situation politique xool innovation yi Ousmane Sonko indi ak parti Pastef mu taxaw def analyse en tant que intellectuel Ousmane Sonko est une nouvelle pour la démocratie sénégalaise waaw loolu <clears throat> loolu dëgg la am na benn wax bu am solo bi nga wax sànq mais yéen yi nga xamante ne nekk euh, ci ci ci parti Pastef féetewoo ci région de Diourbel bi parce que gis nañ fan yi waa Dakar yi macha allah jug nañ def li nga xamante ne wane seen bopp waa Casamance la même chose mais boobu ba tey région de boo ñëwee au niveau de Mbacké Touba gis nañ ni gars yi ba am na ñaar ñu fi jël si ñoo xamante ni ah, ci ci Pastef lañ bokk yéen tey jeunes yi nga xamante yéen nekk fi loolu bi ngeen xamante ne pare ngeen pour wane seen bopp wala da ngeen toog ci mbir mi parce que tamit déggaguñ leen boobu léegi c'est une question pertinente da nga may permettre d'abord ma ma ma ma ma nuyu maanaam ñëpp ñi nga xam ne ils sont du passé coordonnateur de Touba Sëñ Cheikh Thioro di nuyu aussi di di di di di di di en tout cas di di di porter sama solidarité ak sama sama sympathie si ñi nga xam ne ñoo ma jàpp muy euh, Baye Damlo ak Bada Bada Bada Bada Mbaye ñi nga xam ne c'est des c'est des responsables de Pastef ñu fekk leen seen biir kër jàpp leen ñu koy dénoncer di wax ne nañ leen bàyyi parce que amul benn lu ñu leen di toppee donc Sénégal dafa dafa dafa am évolution démocratique boo xam ne mënatuñ nangu ñu téye ay nit arbitrairement fekk nit këram amul dara la koy reproché da doon da doon réunion donc ça ça duñ si jàpp nit donc ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan ñi ngi ñi ngi wax Macky Sall mu ñëwaat à la retenue à la sérénité donc euh, on dirait que dafa am benn panique boo xam ne ça ne se justifie pas maintenant pour répondre sa question bi lan moo tax ñeneen ñi peut-être di di def ay manifestations te ñun au niveau de Mbacké defuñu koy de Touba parce que dañu nekk ci zone boo xam ne c'est une zone particulière la sacralité de la ville de Touba nekk dëkk boo xam ne aussi dafa am dafa am ay kilifa goo xam ne moo fi nekk di wax ñu bëgg a sàmmonteeg war may dëkk mais nag ñi ngi interpellé foofu la ñuy ñaanee Serigne Mountakha ak kilifa yi nga xam ne aussi ñi ngi ci réew bi ñu wax ci lu nii parce que fi affaire bi toll nii ku artu da nga àtte te ñun li ñu nekk gëm-gëm la pas-pas la on va se on va résister mais avec les moyens légaux maanaam dinañ li nga xamné constitution may nañu ko loi et règlement d'équipe may nañu ko dinañ ko jël ba mu mat sëkk on n'appelle pas à la violence mais on va résister parce que la résistance est un droit constitutionnel mais mais Maowa est-ce que tay jii yéen en tant que jeune ngeen gis ah, seen natango yi nga xamné ni ñu ngi féetewoo fii ci diwaanu Touba ah, bokk ci région de Diourbel est-ce que tay ji yéen tamit bu ñu am nek ay jeunes ah, di yëngu ci li nga xamante ne moom mooy politique est-ce que tamit yéen fi ngeen tollu ni tiitu leen ci ci situation actuelle bi bon tiit moom militant Pastef buy tiit moom amul parce que xa gis nañ projet bi xam nañ le projet bi ne lu ci gën a ndaw mooy ay ñu tëj la projet bi ñu laaj parce que ñu ko séqal waa système bi xam ne dañoo ñëw pour daal seen kaw té lu mu laaj danañ ko jox mais aussi suñ euh, militant yi ku mel ne Bara Ndiaye ak Mam Damlo Lo lu leen def dang koy ñaaw dañ koy ñaawlu d'abord parce que enlèvement la fi amna bon commune bi am na commissariat am na gendarmerie loolu lépp xam nañ ko bu fekkee da ngay topp nit ki rek mu nekk ci habitant ci mu doon habitant ci localité bi man li ngeen soxla man ngeen ko def ci dëkk bi mais ñëw à cinq heures du matin prendre benn carte bi wane benn carte de profession bi wane ne man la police wala leneen leneen séquestre ko yóbbu ko loolu dañ koy naqar métti nañu ba fu ñu yem noonu la aussi li xew Dakar ci yenn ci yenn militants yi méttee mais encore une fois ñuy sargalaat les coordinateurs parce que aussi Pastef Mbacké dañ leen di wax gàcce ngalaama parce que ànd nañ ceeg sérénité bien vrai que nag met nañu trop mais ànd nañ ceeg sérénité ak dal bay aussi di artu encore parce que gisoon nañ fi les événements lu lu meloon ne ay couvre-feu bi manifestation dafa amoon ci yeneen gox yi rek ñu gis ko fii nii manifestation amoon na ci yeneen gox yi te li ñi ñu amee ci yeneen gox yi ay militants ñu nekk Mbacké ak Touba gën ñu ñu nekk Dakar gën ñu leen gëm projet Pastef xam nga la li mën na am te ñun ñëpp ñu neex bii ñëw suñu kër lañ lañ bàyyi suñu kër lu wuñ foo defuñu fa dara ñoo ko moom kon donc dëkk bu tàkkee arrangé wul kenn duñu arrangé ànd ak kenn mais am na fa nga xam si nag mbirum artu lañ toll da leen artuwaat parce que ñun ñuy wax ak yéen dañoo dañoo metti dañoo metti donc euh, parce que kii moom dafa panique Macky Sall li muy def nii gis naa sax ni ñu koy tooñ naan ko dafa mel ne liggéeykat parce que ku génn mu jàpp la mais loolu lépp ab tiit rek est-ce que parce que de. non mais du résistance ak la xam si ñun koy violent mais quand on sait battre bien vrai que nous ne sommes pas violents mais aussi on sait battre et résister encore voilà. mais mais damay dégg keroog ah, seen benn toog ne ñu ci mais est-ce que amul lu vie professionnelle. suñ vie professionnelle xam nga dafa am la démocratie daful démocratie parce que déjà buñ la dee li ngay waxtaan ak sa soxna wala leneen la ñu koy déglu loolu aussi nit ki mën nañ koo bàyyi la nga xam si mooy am mais boo dee xool muy yow di man di Mbaye Seck di keneen ak nous sommes tous sur sous écoute mais ñun nëbbutuwul suñ suñ portable du ma sa fay sama portable day dem bay waaj fay sax dama koy taalaat pour man dañ may soxla parce que à chaque fois buñ génnee foog nañ duñ delluwaat suñu kër parce que ñun ñi ñuy jàppee raafle moo am mais ut ci lu nekk voilà ñun dawuñu nëbbutul mais ñoom nag ñoo ñu sonal te loolu aussi su lañ ko commencé ñu muy def campagne wala boobu ba léegi Ousmane Sonko est surveillé mais nit ki nag aussi da koy bàyyi mu dund te loolu aussi bokkul ci la nga xam si peut-être que bokk na ci yenn droit yi nga xam am nga parce que ñun bëgg liberté aussi c'est un droit c'est un droit autant pour moi mais mais Mbaye euh, damay am lu may dégg si si waxu nit ñi ñu ne Ousmane Sonko la plupart des jeunes yi nga xamante ñoo ànd ak moom ñii amuñu carte d'identité ñii mënuñoo voté dañuy coow rek xeex lañ fi nekkee xulo mais yéen nga xam a nekk au niveau de Mbacké ana nan ngeen di recruter jeunesse jeunesse bi nga xamante ñoom ñoo nekk fii ba gëmloo leen ki nga xamante mooy seen leader Ousmane Sonko ba bu ëllëgee bu élection yi taxaw ñoom ñu dem def li nga xamante a ngi koy saytu bon xam nga ñi ñi wax ne Ousmane Sonko ndaw ñi ànd ak Ousmane Sonko amuñu amuñu carte d'identité mënuñu wote ils se trompe <laughs> parce que da ngay da ngay dañuy def benn rappel historique rek Ousmane Sonko bi mu njëkk bokk ci élection euh, mën naa ne presque un pour cent la am dem élection législative dem nekk député am sax ñu koy tooñ naan tout forest la nekkee député n'est-ce pas <laughs> élection présidentielle yi si topp mu am 15 pour cent nekk troisième sur 5 candidats donc actuellement Ousmane Sonko est la tête la figure emblématique de l'opposition sénégalaise moom c'est mooy opposition bi nga xam ne mooy parce que ki nga xam ne moo opposant bi ci deux euh, élections y passées actuellement il est devenu Mburok Sow donc kenn xamatul ne nekkul opposition est le président Idriss donc actuellement il est ci pouvoir. ci pouvoir donc kon benn opposant moo Sénégal kon kooku kenn di minimiser n'est-ce pas te ni 15% amee 15%, pour 15% 15%. comme ni l'avons dit, le ministre de l'intérieur d'alors Aly Ndiaye maa koy nuyu xam naa mi ngi wëngeex ci ci ci salon toog parce que mënatul mate kenn il n'a plus de pouvoir il n'a plus de responsabilité n'est-ce pas donc moom moo moo doon wax ne dinañ organiser wu ba nga xam ne képp kuy euh, militant APR dina am carte électeur am woote donc ñoom ñoo organiser wu ba jeunesse bi joxu jotuñ seen carte électeur mais jeunesse bi ñu joxoon seen carte électeur élection yi passé kon du demee noonu kon pourcentage bi ñu am dañ koy dépassé n'est-ce pas pour te dire tout simplement que Ousmane Sonko dafa nekk une réalité politique actuellement dans ce pays te du si jeunesse bi kese ah

te ñëpp ay sax dans un parti politique ñëpp massifier. donc pour te dire tout simplement que à chaque instant ba instant bi may yow chaque instant nit nit sax da lay wo pour bëgg am des cartes de membre passé nit ñi surtout actuellement ak ak ak ak ak injustice bi ni ñu bëgg def bëgg sur un complot ourdi bëgg éliminer un adversaire politique les gens dañ dañ dañ dañu retrouver naturellement ci ci ci Ousmane Sonko donc pour te dire tout simplement que ne nit ñi ñi ngi ñëw naturellement te ñun aussi ñi ngi def ay activités dans de sang yi man tu en es témoin Vacances agricoles, patriotiques bi parce que moom initié mooy seul parti politique bi nga xam def action citoyenne nest pas parce que nous, dañuy jàpp ne euh, même si nous dañoo nekk opposition nous avons une responsabilité boo xam ne dañ ko am ci dëkk dañ koy assumer xam nga vision boobu noonu moo tax ñëpp gis seen bopp parce que Franck Fanon wax ne euh, toute génération a une mission soit da koy accomplir soit mu soit mu ñàkk accomplir maintenant Ousmane Sonko est conscient de sa mission

gis nañ ne fan yi ah, coow li bari na torop ci benn mbir boo xamante ne dañ ko koo jiñ ñi ne moo ko def ak lu mënti am affaire bi mu ci loxo yoon ah, lépp luñ ci lépp luñ ci xam rek incha allah dinañ leen ko indi fii nga xamante ne moom mooy jotaay ndaw ñi kon nag dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy deuxième partie parce que mënu ñëw Ousmane Sonko actuellement ñi te duggu ci li nga xamante ne moom mooy mbirum Adji Sarr bi moo tax ñu invité suñu ñaari naataangoo yi mais maaw yéen ah, yéen en tant que euh, ngeen bokk ci affaire ci ngeen asafu asafula ngeen bokk ci passif bi ngeen déggee bi ngeen déggee affaire bi ñu ne seen leader moo ko def xaw ma moo ko def xaw ma def ko affaire bi lan la leen def en tant voilà ma faa samay nopp ba nga naan parce que da nga ne bon affaire bi ñu ko gisee ba ñu ko déggee bon ànd nañ ceeg sérénité hmm. ak aussi doon la nga si bon doon na lu basé la nga xam si naqar nañ ko parce que fi mu ñëwee la mais nag xaaroon nañ ko parce que ñun on était averti ci lu bari ci ay la nga xam si ñi amuñu programme ndëgg ay lal ay ndëgg sërëx pour Ousmane Sonko daanu rek mooy seen programme mooy seen projet politique ci lu bari bu la booree xool xam problème xaalis jóge na fi leneen nag leneen lu nekk ñoo ngi koy taqal salafis yaa ko waxoon ak lu nekk terroriste la ak lu nekk wax nañ ko ko lii nag moo ci desoon ñun déjà moi qui vous parle en tant que chargé de formation de nos militants danaan ci politique soit xaalis la wala corruption wala affaire mœurs mais mœurs bi nag peut-être que ñëw suñu leader ñun ñu dañ koy wax suñu nos militants kon donc suñu leader moom lu ñu koy wax sérénité bi mooy bon parce que dañoo gis projet Pastef bi mu ñëwee déjà xam na ne complot la ñëw na xam na ne aussi que bu fekkee médiatique la wax ak les la population ñun dañu am rôle ba nga xam si ñun ak ñoon dañ koo warloo muy devoir ci ñoom ak askan wi wax leen dëgg saasu su ne ñu leen wax dëgg lii bu ne leen complot la dana leen tegal ay firndeel war na complot la bu ñu ko waxee le président Sonko avant mu koy yëg déjà sa benn seen benn naataango moo ko moo ko yëgal benn journaliste. wo suñu cadre kooku moo ko njëkk a yëgal Ousmane Sonko mooy Bassirou Diomaye Faye notre le coordonnateur des cadres de PASTEF mu président wax ko ah loolu yëgguma ko bi ñu ñëwee bon mu ñëw comme tout sénégalais ñaari citoyen la ñu dañuy déjà dañuy xool ñun en tant que des militants parce que aussi comme ni nga ko waxee suñ leader la mais dañuy xool aussi li xew li xew bon nga baal ma dañuy développer foofu rek convocation moo convocation bi déjà day ñëw foofu rek boo yemee ci convocation rek mu leer ne lii complot parce que convocation bi dañ rédiger rédiger bon suis professeur 11 ans amna ko enseignement mais loi bi la convocation bi dañ ci français ba ay article qui xam si wala ki criminaliser viol nga xam amul un an damay PV ndax yaa bind convocation mu ne man waaw bind sama bopp. xale bu jigéen xale bu jigéen. a niveau de xale bi àggul déjà parce que troisième la bàyyee. man professeur ma lay wax ne onze ans de service. loi bi amagul en an loi bi criminalisé viol amagul un an kee xale bu jigéen bi moom troisième la te indi na ko ci convocation ba pare wax na ne moo ko bind déjà foofu loolu méngoowul bi ñu ñëwaatee ak témoins yeeg yëpp yéen a ngi ak PV yi ak contradictoire yi ci am yëpp bon ñu donc lii nuy complot la te instant bi ñuy wax yow fi mu toll nii waxatuñ sax complot la mais instant bi ce qu'on est en train de dire moi que le complot est en train de s'effondrer comme un château de cartes parce que fi mu toll nii moom mooy gën a leer boo dee mais mais mais mais Babacar ah, ku ne ku ne xam na ne instant bii seen leader instant bi mu ngi ci gudd gu ba sëtagul mais damay jàpp ne comme ça moom dafa feebar yéen ñi nga xamante ne yéen a yéen a yéen a yéen a yéen a yéen ay membre ah, ci Pastef comme ça seen leader moom dafay dafa feebar bay est ce que gisul leen yéen ñi dajale cent quatre vingt millions ci dans dans une journée cent vingt cinq millions euh, mm. pardon dans une journée est-ce que tamit yéen mënu leen a woon a fexe ba xam seen leader lii kat a wax dëgg na yàlla lu koy jariñ la ci santé ngeen jëm ko koo jëndal mu yóbbu ko gërëm yi bañ ko ci fekk comme ça yéen xam ne moom moom tôt ou tard day day dëgg day dugg ci ndëgg sarax bi est-ce que loolu tamit waru leen waru lekk lu ngeen a préparer avant xam nga xam nga président Ousmane Sonko dañ ko dañ ko fexee si coté bu nekk dañ ko fexee si bu nekk maanaam dañu xool si côté xaalis amul dara luñ parce que daf ko wax daf ne def naa quinze ans impôt domaine benn boo xam man jël si nañ premier sénégalais bu inspecteur des impôts au niveau du Sénégal n'est-ce pas ñu ñu ñu ñu ñu financement du parti ñu def une journée nous, cent vingt cent millions. n'est-ce pas. mu nekk lu inédit ne ministère de l'intérieur daal di tiit samedi la samedi samedi ministère de l'intérieur du mu dem 3 heures 3 heures du matin. dem bureau bind communiqué. nga day panique ba commencé. non engagement ay 5000 francs 500 francs don de soi. don de soir ah, pour la patrie mo la matérialiser n'est-ce pas parce que objectif xam nga objectif effacer la démocratie comme ni ko objectif ça dépend ça ça dafa le liquider président Ousmane Sonko dafa weesu un troisième mandat comme nous ko nit ñuy wax objectif am effacer la démocratie au niveau du Sénégal nekk un parti unique daal di régner ba doyal jox keneen ku ko neex mu rey ko ce que nekk si maintenant pour nous aussi euh, affaire bi ci Je sama sais pas mu ko waxee peut-être amul dara ñu ci yokk mais la thèse du compte moom que koo xam peut-être sénégalais nga animé de bonne foi xam nga ne c'est un complot urti mais malheureusement dama koy wax ki doon bind scénario bi dafa cuune acteur bi mu tànn wala acteur yi mu tànn dañoo cuune parce que boo demee bay bind scénario sax nga bind scénario bu baax tànn ay acteurs yoo xam ne c'est des professionnels mais ñi mu ni ñu ko defee moo baaxul moo tax dañoo commencé rek failles yi commencé fi mu fi ñuy première faille damay citer rek quelques quelques éléments yoo xam ne day day day créditer la thèse du complot aji Sarr mi ngi jóge ci euh, salon de massage bi 23h heures le deux le deux la bind bi donc mi bind donc entre 23h et minuit si temps vous nga Dakar benn café du amul benn ordinateur kon dafa dem ci ordinateur ki francs une personne diminue comme ni ko ba wala ordinateur une heure de temps n'est-ce pas bind bay vise ay articles articles yu criminalisé le viol nga xam ñun ñi nga xamné ño ñoo jàng ba am 4 ans euh, fac droit peut-être ñun ño ño censé xam loolu mais c'est pas tous les Sénégalais qui sont censés connaître ça am niveau euh, niveau 3 ñu né niveau troisième am ben benen bi euh, ñu ñu né ñu né Adji Sarr mom da doon wax né Jakarta mo koy jël <laughs> Jakarta bi soppé ko 4-4 peut-être peut-être dafa nek dafa nek 4-4 bo xamné wa Jakarta ñoko défa peut-être ah, wa Jakarta ñoko défa <laughs> peut-être ça. non foofu n'est-ce pas Benen bi. <laughs> de damay jox quelques éléments rek. dëgg la beneen affaire bo xamné aussi ça ça crédite la thèse du complot. Mm-hmm. ñu né ñu né ñu né ñu né Adji Sarr mom ci bopam mm-hmm. n'est-ce pas da doon wax né dafa président Ousmane Sonko kañ lay ñëw. Mm-hmm. di inciter n'est-ce pas té amna ku génn ko xamné mom ci ku ne xamné ko ci régime bi mu né sax avant loolu sax. Adji Sarr plainte bindoon na plainte gendarmerie né ko demal ba am ay preuves nga doog a ñëwaat nek affaire bu grave manam daf ne aji sax dem na pour ñu dem na gendarmerie pour prendre prendre pour viol gendarmerie ne ko dama ñu violaat la nga am ay preuve pour dogu ñu ñëwaat waaw gendarmerie ci bopam en tant que institution républicaine daf ko waxone dem jë jëli kooku noonu entendre ko hmm. n'est-ce pas mais euh, ñi wax benen ben instant ben message génn message bo xamni kiko bind dañ ko dañ ko cité won muy setal bopam far envoyé message ñom lañu def scénario ba paré faté baaw subhaanahu wa taala yàlla suñu borom te dafa am ñuy wax ne maanaam xam bi lay taal mm-hmm. say noonu dañ koy xam taal bi lay taal say noonu taal bi lay taal mm-hmm. say noonu lañ koy xam noonu lañ koy xam mais mais mais avant foofu dama fay dama fay tëj ah, ñëw ci li nga xamante ni ah, ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy ma ngeen nekk fii euh, au niveau de Mbacké ana nan ngeen ñu dundee yéen en tant que euh, des militants de Pastef ana nan ngeen ñu dundee seen dund ak ki nga xamante ne moom mooy moom mooy l'actuel maire de de de votre ville Mbacké. bon maire ñun bon ñu ngi koy wax rek mooy instant bi sax maire maire bi peut-être que xëy na dañ loolu aussi dañ cee war a wax mooy seen mandat jeex na bu yàgg. waaw parce que aussi maa ngi xam na ne bu demee ak bu demee élection ñu jël maire bi Pastef jël yëpp yu fi nekk yëpp moo tax ñu bàyyi leen. ñun suñu relation ak maire bi moy gis nañ ko moo ngi muy gérer notre cité aussi gestion bi neexuñu am nañ projet ba nga xam si moo gën mais amuñu mom du suñu interlocuteur fi ci département bi parce que déjà gestion lu leen rafetlu aussi gis nañ ne projet bi passé am mo gën projet bi muy déroulé donc ñun amuñu mom benn relation muy maire bi wala keneen ka nga xam si donc mo ngi prétendre ñom seen biir non la def ñun aussi ñoo ngi liggéey suñu projet te inshallah bu election municipal yi election locale da ngeen gis par exemple passé ak ay eh, ak ak candidat mais dundin bi ci dëkk bi amu leen benn jafé jafé amu amu leen benn xat-xat ci dëkk bi yeen ngi dund nice non ñoo ngi dund nice ben eh, dund nice no xamoo xat-xat yi moy lan mais ñun peut comme ñoo ngi circuler ñoo ngi aussi dem di dem suñu fonction di dem lépp amuñu benn jafé jafé mais quand à nag peut être que lu maire bi doxé mom neexuñu moom parce que mënon na gën quoi mënon na gën mais mais mais Mbaye euh, damay ñëw comme question bi ma posé kii yéen ñi nga xamante ni yéen ay euh, nekk yi nekk nan ngeen ñu dundee euh, ki nga xamante moom mooy l'actuel maire de seen ville ñu naan ci bokk nekk ci mairie Mbacké bi ana yéen waa Pastef bi nan ngeen ñu dundee parce que ku ne xam na ne temps yi moom a yoon bërëb bi teeku bu baax a baax a baax moo tax gars yi fi mu ne leen gisee dañuy tiit ah ngeen dajaloo des fois ñuy problème wala ñu leen ci ci bu Abdou Mbacke Ndaw li ñu wax rek mooy que ne xam nga moom dafa dafa dafa dafa nekk nit koo xam ne peut-être Mbacke dañu amoon ci moom espoir sincèrement bi muy ñëw parce que dafa ñëw sur la base d'un mouvement nekk koo xam ne kenn xamu ko woon sax si cadre politique mu ñëw fekk fi ay kàngam ci politique nag ñu nekk si ay parti yu mag mu nga Mbacke jox ko confiance n'est-ce pas mais bi mu ñëwee moom jàppoon na ne peut-être pour mu pour mu réussir mission dafay dem ci APR dem ranger aussi derrière Macky Sall bu def ko mais malheureusement moom bi mu nekk toon maire acte yi mu doon posé sax bi mu nekkee maire ànd ak Macky Sall mënatul posé acte yooyu noonu ça veut tout dire ça veut dire que soit Macky Sall moom moom moo gëddaawut moo faydaawut diggante Mbacké ak Touba maanaam wet bi ko war a wet te Mbacké nekk la première démo en tout cas l'un des départements nga xam ne moo ëpp ci Sénégal Touba nekk la première démographie n'est-ce pas à part Dakar au niveau du Sénégal donc dafa am benn considération ba loo xam ne du du loo xam ne dañ koy dañ koy ñaan c'est une exigence Touba daf ko war a am Mbacké dafa war a parce que buñ ñu mënuñu wax Touba Baye Mbacke parce que chef lieu département c'est au niveau de donc moy moy manque de considération moy mooy ci projet politique parce que un maire peut-être c'est ses moyens peut être limité. mais il y a ce qu'on appelle le politique publique de l'État mais Macky Sall bi mu toogee ba tey amul benn investissement digne de ce nom bo xam ne def na ko Mbacke benn stade lañu fa commencé def bo xam chantier yi mi ngi daanoo ko avant ñu koy am sax jeunesse bi ñoo xex fu nekk ñu ñu dugg maire monsieur Matar ba ñëw fii ne dafay dañ koy dañ koy commencé boobu ba tey pour revenir maintenant sur euh, la gestion de la municipalité donc Abdou Mbacké Ndao peut-être euh, li mu waroon def def ko te instant bi sax li ñuy déplorer d'abord mooy que ne énergie d'aucune légitimité maanaam nekkatul maire en tant que tel de droit mais muy maire Sénégal yëpp kenn nekkatu ci maire parce que seen mandat jeex na bu yàgg maanaam dañu nekk maire si si si loo xam ne jaarul yoon mooy forfaiture bi Macky Sall tàmmal nit ñi. maire ma neex daal boo xam ne amoo amatoo droit nekk maire. te loolu c'est c'est la volonté du président Macky Sall volonté am parce que def nañ def nañ élection 2019. mu mu demee ni mu demee peut-être mën naa ne bu transparent woon sax président Macky Sall du nekk président du nekk élection yoo xam ne dañ ko sàcc. biñ ko sàccee mu toog élection yi jaaw bu fekkoon dafa gagné élection yi. dafay eh, dafay organiser élection législative ak ak ak ak municipal parce que dafay dafay xam ne moom moom majoritaire mm-hmm. analyse dañuy def de Macky Sall bu gagné woon élection présidentielle 2019 kon élection municipale organisé groupe bu yàgg parce que dafay xam ne moom majorité mais dafa xam ne gagné il est minoritaire mu def ay sondage ñu xamal ko ne boo demee élection législative ak municipal da ngay ñàkk moo tax mu jouer avec le calendrier électoral instant bi mu bëgg mooy couple élection législative ak élection municipale loolu bëgg opposition bi ñoo war ñoo war ñoo war def benn say parce que loolu c'est des actes démocratiques dañoo xeex ba am ko du temps de Diouf jusqu'à présent waxuñu nangu Macky Sall li nga xam ne askan bi dañ doon xeex 23 juin ñëpp di xeex ba ay nit gaañu si te moom bi mu wotee xeex bi ba pare dafa wax rocceeku wër def tour Sénégal bàyyi xale yi ñuy xeex ba ay nit gaañu mm-hmm. sur la base de ce combat mu nekk président bëgg a ñëwaat confisquer tous nos droits et tout nos libertés tout nos libertés donc juste pour lancer un message parce que euh,

est-ce que laajuñ ko ba xam complot la. non non journaliste yi dane ko. que pensez-vous de du cas de Ousmane Sonko accusé de viol mu ne man aw ma jot ay complot ça veut dire que moom admettre na ne complot moom existé na même bu fekkee du moom moom mooy metteur en scène. mais mais mais Mao gis nañ euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk fii euh, Pastef euh, bu Touba gis nañ fan yii ñu def seen benn. wane wane wan seen leader ne ko bàyyi wuñ ko ñu ci ginnaaw mais pourquoi yéen waa Mbàkke gisuñ leen ci lu mel noonu da ngeen a ragal wala wala wala da ngeen a pareegul wala da ngeen a bariwul nu mu demee noonu non waa Mbàkke def nañ conférence de presse comme ni ko waa Touba defee lañ ci sargal loolu rafet na trop comme ni ko expliqué noonu mais def nañ peut être que fu mu toll nii trois conférence de presse bi ko waa Touba defoon sax xëy na war nañu fee fekk aussi ñu ñëw ñu ñëpp ñu àndandoo ko parce que ñooy liggéeyandoo mais ñoo ngi woon aussi ci comme niñ koy waxee rek nekk nañ ci phase ba nga xam si ñëpp dañ ciy liggéey ñooy woon boobu entamé woon phase si gis nañ fi ñëpp kilifa diine yi fi nekk yëpp suñu localité Baye Fall wala mosoo beeg ñëpp wax leen li xew ci xamal leen li xew ci situation bi ak situation dëkk bi ñëpp xam nañ ko aussi ñaana suñ leader foofu la moo tax mais ñun conférence de presse boobu noonu waroon nañoo ñëw mais jour boobu waa Touba nekkee fe waa Mbàkke nag liggéey fe loolu aussi suñ compte la feneen bi dama bëggoon nga may ma tuuti rek dama am la nga amoon loo posé woon question muy détermination militants yi ak seen leader ba lu tax nga ne woon lu tax ñun ñun feebara bi ñun joxuñu ko pour mu faj bu ko leader bu ko lee bu ko waa Pastef xamoon Ousmane Sonko doon na ka xam si du laaj nit pour faj aussi doon na ka nga xam si du maanaam pour maanaam ñun am nañ ko mais duñ moom moo koy laaj xaalis bi ñuy dem cent vingt cinq millions lañ joxe cent vingt cinq millions yoo xam nga ne ko donc mën na cee faju mais xaalis boobu noonu projet la ñu ne lii moo ko tax a jóg moom lu ma la wax rek ci sincérité ak dignité sañu koo laaj pour moom mais gis nga bi ñu ko yëgee aussi am na la nga xam si mooy benn chaise ba nga xam si Roland ba xam si masseuse la waa Pastef si Sine jëndal nañ ko donc ñun loolu mooy engagement loolu mooy engagement Pastef te boo dee xool cent vingt cinq millions yi ngay xool moom indi lépp tey parce que bi koy indi benn cinq cinq mille francs dañuy joxe mille francs kenn joxewul cent mille cent mille parce que fii ci département bi mais ay vingt ay cinq mille vingt cinq mille cinquante mille ba mu mat ñu joxe ci kaw loolu nag loolu moo indi lépp parce que comme ni ko kii rek trois heures du matin samedi ñu ne ñu kon ñoo ngi ci dimanche waroo liggéey nga dem pondre ñu benn torsion ba nga xam si communiqué ba xam si jaaroo sax ci voie légale parce que yow boo dee jàng sax danaan la bala nga kaa dàq waxal ak moom avertir ko d' abord kon donc war bu fekkee am na la nga xam si jaaroon nañ ko te demul noonu wax ñu ne léegi lii ñu rappelé waat en l'ordre mm. benn de le 31 janvier bi libération laa lay wax parce que le 31 janvier bi su bilan financier dem na ba su bilan financier demee le 31 janvier bi gis nañ ci 125 millions yi seet saytu nañ ko gis nañ ci donc Pastef amul lenn la nga xam ne c'est illégal la nga xam ne def nañ ci wàllum xaalis ci lañ indee seen plan bi nag le 2 le 31 janvier le 1 le premier le 2 ñu ñu ñu déroulé plan. mais yéen fii nii au niveau Mbacké est-ce que yéen a ngi yéen a ngi yéen a ngi yéen seen seen seen leader bi ah, normal yéen a ngi déggante ak moom di ko wan ah, di ko wan ne ko yéen a ngi si ginnaaw est que am ngeen am ngeen am ngeen contact boobu waaw contact boobu bien sûr quand même dama lay wax ne la comme boo jëlee ñun suñu parti rek ñun bon boo jëlee peut-être maaw mënut a wax ne par exemple Ousmane Sonko président Ousmane Sonko la jox parce que bu aussi loolu mooy respect parti beeg et mais bo jëlee ku mel ne Amadou Lo muy coordonnateur Mbacké Cheikh Thioro ñoom bu ndey woo Ousmane Sonko sax bu ndey woo président sax Ousmane Ousmane Sonko lañ wo woowee parce que ay frère lan chaque jour ñu déggante ba ci lii xew nii rek ku ci nekk daanaka moom xam na lu waa Mbacké di liggéey fii aussi xam na lu waa Touba di liggéey ak yeneen coordonnateurs communaux yi nekk ci département bi donc ñoo ngi déggante ak aussi moy Pastef reconnaissance boobu moom am nañ ko te Pastef dama lay benn révélation Ousmane Sonko lu mu bàyyee cër département bi di Mbacké mën na ne demu ko sax feneen ba ci Bignona bi mu dëkk mën na sañoon sañoon wax ne at mi

Sénégal am na lépp am na pétrole am na or am na zircon am na lépp mais lan moo ko tey avancé xam nañ ko mooy régime bi nekk fi muy système bi nekk fi te ñun taxaw nañ pour système boobu ñu wàcce ko ñu ñu defaraat suñu pays ñu defaraat suñu patrie defaraat suñu nation te lool ñu ngi ci woo jeunesse yëpp ñëw leen ne nag projet Pastef mu ngi nii ñëw leen ñu àndoo liggéey Sénégal ñun dong la waaw te loolu nag dafa laaj fit jom fulla ak fayda te mooy lañ suñu taxawaay fii waaw peut-être que xeyna dañuy wax temps bi naqalu ci temps bu gatt bi xeyna benen yoon na gëna yaatu di rafetlu wat émission bi di gërëmaat wa siwal tv ñëpp ñu yombalale peut-être émission yi ban man ci wax ak suñu mbokk militant suñu mbokk confrère même suñu adversaire sax fu mu toll nii qui sont devenus des ennemis maintenant APR si xam na leen mbir mi du APR nit da ngay gëm yalla Macky Sall mom ak lu mëna xew 2024 du kan du poser au candidat ak lu mëna xew aussi li dañ ci génn te aussi moom dana gis ne le complot moom ñëpp moom fu tonni ñoo ngi déployer nak da may bay rek mais ñoo ngi déployer seen fu mu toll nii seen lepp dañuy solo seen bopp ak yàq seen xaalis rek parce que mu ñoo wax la nga xam si dugg na ci askan wi askan wi moom ay joie yu mu gën a xëy complot di gën a leer ñoom rek wasalaam voilà merci beaucoup ma Babacar ah, lan ngay tàggoo askan wi ak ban conseil ngay jox ah, ndaw ñi nga xamante ne tey ñu ngi ci ginnaaw Ousmane Sonko ndax loolu mooy thème émission bi ndaw ñi ak Ousmane Sonko ana ban conseil ngeen di jox ah, tey jii bala ñuy jeexale nga xamante ne koy biir émission jërëjëf boo may tàggatoo nga may ma rek ma wax si deux points yu gàtt mooy si prise en charge bi nga doon wax euh, li tax ñun ñun ñun ñun ñun ñun jëriñ ko woon en charge maladie boobu noonu am na sax ñu naan lu tax lu tax lu tax Ousmane Sonko jëwut prise en charge bi mu am au niveau de l'Assemblée nationale parce que am na prise en charge mais Ousmane Sonko mooy koo xam ne peut-être moom vision bu mu am ci ci ci ci politique ak ci defar réewam ñeneen ñi amuñ ko parce que dama dama déggu Mamadou ba Bamba Girassi député mu ne Ousmane Sonko session yi nga xam dañ koy def sax ñu leen ci jox ay cinq cent mille francs mosu ko jël mosu ko jël mu ne moom bu fekkoonte ne bii maanaam prise en charge bi kese la jëwut maanaam dina dina dina ñaaw njort mais maanaam session yi ñuy def sax nga xam ne député yëpp dañuy ñëw émargé ñu jox leen ay cinq cent mille francs Ousmane Sonko mosu ko jël cinq cent mille francs yooyu salaire am daf ko jël benn parti mu jox ko pouponnière bu nekk Kaolack benn parti mu jox ko ay yoo xam ne dañoo nekk Ziguinchor di def ay ay transformation de produits locaux pour dire que moi, moom dafa une vision incarner incarné vision politique kon a ko koy nangoo pour pour wax aussi ci ci ci président Ousmane Sonko du ma xam rien de leader avant may xam Ousmane Sonko xamoon naa yenn leader mais accessibilité bu ma am ak nit bi nekk si moom gisuma ko leader parce que même ce muy li incarné yëpp ak représenté c'est très accessible comme ni m'a maa C'est très accessible en tant que leader donc aussi dafa baax ci leader nit ay nit bu bu bu bu ñu nekk ci benn cause bien que ñun ni ma ko waxee sànq nekkul la personne Ousmane Sonko moo tax ñuy agir mm. cause yi moo tax ñuy agir mais moom mi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy incarner cause bi aussi day baax mu am reconnaissance ñi nga xam ne ñoo nekk si projet bi mm. te reconnaissance boobu mën na sëkk pour terminer ñu wax ndaw ñëpp ne ñu ngi leen di woo ci projet passif parce que mooy seule alternative bi nga xam ne mën na defal Sénégal parce que on a fait 60 ans d' indépendance depuis 60 ans jusqu'à présent mais euh, Corée du Nord ñun ñoko ko Corée du Sud ñoko ko mom jitt nañu Japon ay Singapour yépp ñoo leen actuellement ñom ñoo ñu Sénégal le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres au niveau du monde donc jeunesse bi nak euh, ñom ñoy ñoy avenir de demain de maintenant sax waaye wax parce que demain dafa sori ñun ñun ñun dañu wara a xalaat suñuy doom ak suñuy sët té pour ñu pour pour suñuy doom baña a bañ a dañuy dundu nañ ñoo ñu épouser la cause du passé ñu defal réew mi di di di di wax ne ñu ngi leen sant si invitation bi am mënuñoo daane suñu kàddu nag te ñaanal ñu sëñ Mouhamadou Mountakha Bachir mu yàgg fi te wér ñaanal sëriñ Abou Baraka ñaana sëriñ Cheikh Jëmb Fall ñaanal suñu wasila sëriñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall suñu borom guddal fanam wéral ci yaram ba lépp mu yéene ci lislaam mu matal ah jërëjëf ah, mbokk yi lii moo nekkoon ah, seen thème du jour ñu tuddee ko ah, ndaw ñi ak Ousmane Sonko loolu moo waral ñu invité sunu ñaari naataango yi nekk ci parti Pastef nee eh, naa leen chaque jour seen émission bu mag bii jotaay ndaw ñi chaque jour ci actualité dox waaye chaque jour day dox ci li nga xamante ni mooy yee ndaw ñi tey suba ak ginnaaw suba parce que bëgg na bépp ndaw boo xamante ni yaa ngi suivre émission bi nga mën cee gis comme ni koy yàgg di bu baax di leen gërëm di ah, may ah, bala may bala may ma sant ki nga xamante moom mooy Bamba Tall ah, sama defarkatu dàll boobu macha allah di ko sant bu baax di gërëm tamit ki nga xamante ne moom moo jaar ci yére bu muy Solma Couture di leen jaajëfal di leen jox mooy Siweul TV abonné wul bés cloche de notification bi ba nga xamante ne émission bu wàcc incha allah di ngeen ci mën a jot di leen jaajëfal di leen jox di daje incha allah ba beneen émission bi nga xamante moom mooy jotaay ndaw ñi jërë ngeen you.